لطفا يا برد أحرام arda أسراري يا أكرم الكرى mbokki àdduna mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyuwaat beneen nuyoo ku gis fi ñu taxaw xam ni fi ñu nekkoon sànq ak léegi changé na li ko waral mooy egsi nañu Louga ci kattanal yàlla subhanahu wa taala agsi nañ ci ci jàmm ñu ngi waaj pour dugg nag pour dem ànd ak euh, ki nga xamante ne bii mooy Chérif Ibrahima Haydara Tijani ci convoi bu mag bi nga xamante ne bii ànd naag moom ñu fas yéene départ fii léegi ndax dañu doon xaarante yëpp agsi nañu ñu ngi waaj nag pour dem fekki sang bu tedd boobu di Thierno Bachir Mountakha Taha Tall ci ziaram bi nga xamante ne bii mooy ziare Mountakha Taha Cheikh Omar bi nga xamante ne bii mooy baayam ci di di di di sëriñamam di léppam fa tabarakallahu ni ñu leen ko waxee yegsi nañu léegi kaar yi romb ñu bu ñuy romb benn pat benn bu ci kanamee léegi ñu egg ci Thierno Bachir Mountaga Taha moom it mu génn ci euh, oyofam génn ci euh, li nga xamante ne bi dayo bi nga xamante ne bi euh, mbooloo mi amal na ko solo li nga xamante ne bi yitteel na ko lool mooy génnal boppam du wax kenn demal nga recevoiral ma waaye moom mooy génnal boppam recevoiral boppam mbooloo mi ñu romb kenn par kenn ñëpp ziyaarandoo ko bu ñu paree ñu delluwaat nag doo ko préparer pour dem ca tànt ba kon mbokk yi ñu leen di dig daje léegi léegi léegi ci kanam oto yaa ngi noonu yaa ngi dégg motard bi noonu di ñëw oto yi topp ci ginnaawam benn par benn bu ñu wëree rek incha allah dañuy dem ci Thierno Bachir directement fekk lépp kon mbokk yi ñu ngi leen di dig daje léegi ci kanam fii ñaari minutes wala fii ñetti minutes ñu wan leen oto yi ni ñu doon ñëwee fii ci biir Louga kon ñu ngi leen di xaar ci chaîne bi nga xamante ne mooy Cherif Dabakh TV di leen ci xaar incha allah ci kanam tuuti rek ñu digtal leen ko comme niñ leen ko waxee woon en direct Louga la 2019 asalaamaaleykum wa rahmatullah أصبت بداء Oh

góor gi ne wa rahmatullahi kullal xalqi qad wasi'a min fajirin wa mudi'in zahidin barin wa rahmatullahi kullal الخلق قد وسع من فجير ومطيع زاهد بارئ لو كان بابك لا يطيل بقدر فما دعيت غفورا كل أوزار الكرم يأتي ذو إثم ومدعي غفورا كل أوزاري خاطبت ربي حتى الله بنا فاغفر لعبد من الأذى

الفقراء من دون الكاي لو كان باؤك لا ياتي إذا بالغنى فما تعيد عن كل أوزاري إني فقير وقيت مختصر ما احتاج غيرك في تيسير او مارق لو كان بابك لا ياتي ذو اثم فما دعيت غفورا كل اوزار أبرار لو كان بابك لا يأتي ذو إثم وما تعيت غفورا كل أوزار هبني إلهي يا رب كملت وستر خطاياي ربي أي أستار لو كان بابك لا يأتي ذو لعمر الفوجي نعم سيدي بشير منتقى داها شيخ عمر خليفة المظلم المختار ثم أبي العباس والآي والفاروق المنتصر سيد النور والمكمي الله بشيرنا وارث

alpha Serigne Sousane waaw. soixante-quatorze. jërëjëf. jërëjëf. waa kii si kii si ñu ngi nii. jërëm. permet devant permet devant permet devant man ci man daan naa la wax bu la ndëm la ku daan koo lay féete waa jaa ngi de yàlla na nga dund ak ñun téeméer ak juróom fukk loo dund doyul borom ay bu neex ku ñëw de da cee laxe loxo waaye yow yow bi yaa jëloon mu tegal dara gittu gëlëm yaa ngi taxaw gittu nag yaa ngi taxaw magasin yi fees naan ceeb nguur bi nag ne ku bëgg a barke lu ñu waaye man pare naa yaa jëral sa baay yaa jëral sa maam soo mu futti taal yal na yàlla may gudd fan ak wóor. mbokk dem si lay ma ca taar ba ak doom ja yaay waaja de. Ibrahima. Chérif. Aïdara Tijani. loo am ci kër gi nag El Hadj Abdoulaye Diagne dama la ko yóbbu. waaye loolu ci biir ci moom kër mu tënkaa daxaar ko yéene. waaye yaa ngi Cheikh Moussa Diagne. Bachir. Siège bi génn naa leen عمر المؤمن وسيدي بشرى لنا بشرى لنا eh bàyyi leen diggante tëli bi nag ak bisu mu ñëw. waaw waaw ba am toog pare rek la sëñ si soxla. bàyyi leen daa génn si pour xool ba leen dox di gëm ak ñu xool. sécurité bi dégage. kii ñoo na taxaw ci tali bi moom wàcc na nañu ak tali bi tabaarakallaahu lu yombul la ndax Serigne Ibrahima ñoo ñu taxaw boo koy fayal ba pare moom seen gars yi moom mooy jël xaalis bu baax dafay moto yi képp ku bëgg naa si jaay ci tey boo koy fayal ba pare moom seen gars yi moom mooy jël xaalis bu baax dafay moto yi bu ko defee nag oto yi nga xam ne baax baax ñu mën a jaay loolu nag léegi dafa yor mooy léegi mooy oto bi nga xam ne moom seen Ibrahima moom ak njaboot bi

leen joxe loxo moo leen joxe loxo najgorą drogę, to nie jest drogę, to wróci. Tak. Słuchaj, o! Słuchaj, słuchaj! Ja nie wiem, nie wiem. Słuchaj! To jest guzik, Mała! Lii ngeen seen muy naaw di film nag mooy filmé moom kële Thierno Serigne Ibrahima ñoo ànd en direct lay àdduna bépp ñu ngi seetaan imam seegi noonu page numéro 9 ci waa Tivaouane ba tey ñëpp ñëpp si la jërëjëf si jërëjëf si bu tedd baa ngi nii bu tedd baa ngi nii xool asamaan jërul buuxante asamaan jërul buuxante bu teg sa bët ci jëmam du teg sa bët ci jëmam du tedd ji rek am nga lu rëy tey am nga lu rëy tey yàlla na ko muurloo ah ah mais léegi ndaw yaa ngi noonu léegi nag mu des baa ngi noonu xalifa bu tedd baa ngi nii wallaahi wallaahi ziar baax xalifa baa ngi nii ngeen di jëloon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf lii mooy liggéeyu Ibrahima Aïdara loolu baa ngi noonu sax loolu ci ak na bépp ñu jàkkaarloo numéro 20 numéro 20 nga ko ne maa la ko bàyyam waaye bàyyam bëgg na ko de jërë ngeen jëf waa xalifa di ko toog nekk li nii wala déggee yombul waaye Ibrahima yaa toll noonu ci sëriñ yi loo ko mos a wax dëgg la dem rek bu la fekkee sa kër la nga lii tey def ko la def nga ko

waaw waaw te mu si ak yow rek daa ko rek daa ko rek teew. wallaay keroog nga sa baay teew keroog nga mun ko gàttal keroog keroog nga Cheikh Moussa kii taal waaye keroog nga nag moomu islamique nag. boo tee boo demee Tivaouane ñëpp bëgg nañu soo demee Touba ñëpp bëgg nañu mooy gën a islam ci biir réew jàmbaar gaa ngi. permet les gars chef Balma chef Balma. permet permet. Balma Balma. jëlal loxo jëlal loxo permet. sabru shawqi man daaqahu laa yubaali. yàlla la

yaa ci biir yaa ci biir baax na kon loolu Sénégal yëpp teg seen bët am na yëpp teg seen bët yëg naa ni chaque année bu ñu yegsee fii mbégte bi Chérif di am rek ñu koy jóge ci liñ ci seet bu ñu gisee ba yegg si dootul sol dàll donte ñun daal yooyu nañ sol dàll waaye moom day foofu suñu ay dàll ndax mbégte goo xamante ni am na ko ci baayam kon ñu laajte bu baax a baax a baax li mbégte bi nan la ko yóbbu waaw métier bi de li a daan wax rek di nuyu Sénégal yëpp di nuyu àddina yëpp di nuyu waa Louga yëpp nag góor jigéen mag ak ndaw di leen sant di leen gërëm rawatina ñi ma àndal jógee Dakar ne Louga ku ne xam ne Dakar sori na kon ñooñu yàlla rek am seen fay waaye li ñu fay defal nag Cerno Bachir Mountaga Daax ak ku xamoon li ko yàlla defal di ko yaa ngi wax sama ñàkk sol daal bu ma xasee yëg si ah bàyyam bu baax ba alxaaji Cerno Saidu Nuur radiyallaahu taala radiyallaahu taala anhu moo waxoon ne su ma fekkee woon ni jamono Bachir damay takk kaala ci sama nit def tànki neen topp ci kawam lu mu bëgg ma def lu mu tere taala anhu te bam koo ko wax loolu moo ko koo koo xam Thierno Bachir. Thierno Bachir Nour Tall Tall Tall. ah loolu nag moo tax bu fexe see yegg si dootuma sol daal la. barke Seydina Mouhamed. gannaaw Seyd Thierno Saïd Nour. ma jàgg Assane. moo waxoon ne day takk njëggam. def tànki neen. ah man ma def tànki neen wutoo ko. muy sama tarbiye ci Thierno Bachir Nour daga daax Cheikh Oumar. te lu ma fi indi it ba nit ñi di ko yéem. asaka yi li ma ko yéene sax ñëwul asaka li ma ko yéene ñëwul waaye nag ah nit moom la man rek lay def di yokk di yokk rek te yàlla man loolu lu amin ay dara waaye daal li wóor mooy ah. su ko Louga yëpp xamoon Sénégal yëpp xam ko jar na doxee Dakar ba Louga def tànki neen ba yegg si jox ko loxo. tànk moom jëm na Bachirou Mountaga daal. wallaahi wallaahi wallaahi jar na doxee Dakar ba Louga tànki neen. Mhm. ñëw rek xool ko mu xool la doo ko sax jox loxo. da nga koy daan xool ko mu xool la da nga ne ko maa ngay ñibbiwaat Dakar. doxal tànki neen dem man Sidi Sambal Demba ñu xamoon kuy Thierno Bachirou. Thierno Bachirou ëpp na loolu. la ilaha ah, ëpp na loolu. yaa mën a sagal sa bàyyi. Ah, cëram ci yàlla. Mhm. waaye loo xam ne kenn weranti ko wu ko tey ci àddina bi. Mhm. ñëpp ko ne Cerno Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar muy murit muy xaadir muy tijaan muy laayeen muy ibadu rahman ñëpp nangul nañ ko di ko yàlla loolu nag yombul yàlla defal ko daanaka téeméeri at yu ne kenn la ko ci yàlla di jagleel hmm? téeméeri at yu ne kenn la ko ci yàlla di jagleel moo tax ñu gis Alaaji Abdul Aziz ñëpp nanguloon ko unanimité wallahi sirru booba yàlla roofoon alaaji Abdoul Aziz ba àddina ah. bi yëpp nangul ko ah. moom la roof Ceerno Basiru Muntaga laa ilaaha illallaah ko daa dama ay ba ñëpp chrétien jullit murit tijaan xaadir laayeen ibaadu rahmaan ñi gëmul yàlla sax bëgg nañ Ceerno Basiru nangul waaw kon nit ñi nga xam ne ñun la yàlla na ko ñu ngi ay jullit taalibe tijaan moom ko kër alaaji Maalik kon ñun ñu war a def Ceerno Basiru laa ilaaha illallaah xanaa tar bi ñu ko war a def topp ginnaawam rek yaakaar wallaay yaakaar bu bëgg sagal nga ko de sagal nga ko de adarkara am walu fanu halal te ko ci dara ko ci yalla rek ko jël gën ko distara nga sax na ko sagal ni na gi la mango dara ci sama moo ko wax ni man sëriñ sama doomu ruux sagal na ma yalla na yalla sagal nga sagal Bachir yalla na yalla sagal na ko na ko ko dum na ba dam garim ba dam garim ba dam

dañ ko wax toujours mu ne ma alaaji ngañ ma ne ko billaahi ku la toppandoo dina bari convocation police li mu nekk ci diine ndax lii jikko yàlla mooy tabe ba noppi fa taba am sañ-sañ boole am sañ-sañ ko yàlla boole lu mu nga ni lii ba man da tolloo am ñeenti junni kaar boole koog oto yi da def ko ngir yàlla Thierno Bachir waaye foog ngeen fay maa ko wax maa la wax loolu ñu fay ci kanam tuuti dal lu incha allahu taala bu ko defee rek ñu ngi leen di dajale ci kanam tuuti incha allah yëpp bu leen bu leen jàppee jàppale ko ci service de parti te ñëpp ñaanal ko fan wu gudd ñëpp ñaanal ko fan wu gudd nañ ñaanal Serigne Ibrahima Aïdara yàlla may ko fan wu gudd amiin yaa rabbal fan wala jàppal si dund yàlla na dund lu ko ci dara yonent bi sagal gi mu sagal Thierno Bachir ba mu yëg ci kàddoom nag Serigne Seck moo ko jël génn xalam bu sedd boobu yàlla xolu Serigne Seck amiin yaa rabbal kon jërëjëf mbokk yi jërëjëf amiin waaw wallaay wallaay taal